Je suis tay man en tant que responsable régional du rassemblement pour le peuple RP pour rétablir la vérité ci li ngeen di dégg communiqué bi nga mi ngi responsable politique bi nga le ni premier secrétaire élu du département de Foundiougne de ISABA, du responsable départemental de Foundiougne def na ko ci alfayda te li wax tegut ko fenn parce que il a parlé au nom bureau politique te bureau politique récemment def nañ def nañ réunion te liñ génnee bokkut ak li Issaba wax Issaba dafa wax ne RP génn na Benno Bokk Yaakaar te loolu du dëgg RP mu ngi réitérer engagement am ak ancrage ci Benno Bokk yakar paré nak pour and ak président de la République yóbbu ko as may ko majorité écrasante ci Assemblée nationale bureau politique parti bi nak ak responsable yi fundiñ au niveau de toutes les communes ñi ngi paré pour dajé pour waxtan pour dajé ñom timit def démenti bi nga xamné ni def nañ ko xamal mbolém réew mi ne len Issa Ba li mu wax moom kenn la concerné mais concerné wul parti bi ñi ngi interpellé aussi commission disciplinaire dana intervenir ci wax ji ak lan moo ko waral ak lan moo nekk ci suufam parce que daf ñuy jaaxal ñu toog mu def benn déclaration ci turi parti bi te du porte parole parti bi du administrateur parti bi bon xamuñ ci ban doole la mën a waxee ne benn ne RP génn na benn Bokk Yaakaar te RP parti la boo xamante ni depuis 2012 mi ngi ànd ak président Macky sàll te àndut àndi naa fekk àndut àndi joxe loxo rocc làmmiñ waaye dafa ànd ànd bu sincère ànd bu dëggu ndax loolu lañ xam ci suñ baay sëriñ Mamoun Niass ku mu mës ànd ànd naag yow waaye ku mësa mës xeexal xeex naag yow loolu la xamoon ànd gor la ci xam fépp ci région yu Sénégal yi muy dakaar muy Kaffrine muy Tamba muy Ziguinchor partout le RP est bien ancré dans le Benno Bokk quant à ce li nga xamante ni ay problème interne là, au euh, au sein de notre coalition Nous ñun dañ ko régler internement parce que wa APR yi sax bu nous ngeen dégg leen ñu ne lu leen ci coalition waaye suñ engagement ñi ngi koy renouveler def nañ parrainer tous les responsables départementaux et communaux def nañ un parrainage jébbal ko Benno Bokk Yaakaar te dañuy continuer à faire bi élections pour dem législative avec le Benno Bokk